waajaa ngi noonu. bay sëriñ bii nga yaakaar kii mooy xalifa général bi. xalifa général la. ah Tijaan. moom tudd. Mamadou. mbay ku jaaree Mamadou ak nii ñaaw. ah mbay ku Mamadou. mais hmm. waaw Doudou jàppale ma mooy xalifa général bi. ba pare mooy xalifa général teg si waaw mooy sa sëriñ surtout Mamadou kan la. kii moo ma jaaxal. général ak Aziz kii. Al Amin waaw kii. xalifa général la ngi na xalifa général baa ngi nii. moom la de. waaw. Ah. wala xalifa général mbay léegi waaw Diourou bul yàq nga kon. kii du moom moo xaw ma nan. Mbaye mais Mbaye defal naa ko comment nañu wax ak dëgg. nañu général bi moo ni nii. day saan. maam Maodo nee maam Maodo ne nii. moom la maam mais Mbaye. mais Mbaye Mbaye comment ça fait du sa doomu nday bàyyi. nga yow de. doo dégg ñu ko Al Amin xanaa. waaw Al Amin moom la. waaw mu ngi Al Amin. Al Amin a ngi nii ah, ay yéen danga ne mooy Mbaye Mbaye danga waaw moom moom mooy xalifa kii nii. al doo toog nii waxtaan. coowal gàmmu gi Mbaye toogal nii gàmmu gi foo ñu waxtaanee ko. parce que yow lii li olof naan. mooy xalifa bi de. doo si kii caaya nga si. si caaya eh, eh, eh, silib silib si de. déedéet caaya nga si de sa digganteeg Aziz sa digganteeg Baye àdduna yëpp xam ko. Ah. buñ ne Mbaye Kouthia. ñii mbay Mbaye mu Baye Mbaye ma mais Mbaye ana Kouthia. Kouthia mi ngi tànn dafa bay, à, có mi tane ah mi ngi tane waaw. léegi mais Mbaye yaa ngi yaa ngi koy seeti di déggante ak moom. maa ngi déggante ak moom te Kouthia mënu ma koo mënu ma koo là mày ma ko parce que su ma ko xoolee damay xaru damay jooy. waaw parce que nañ bàyyi gars yi ay ñoom Birane Ndour suñu demee ay Oustaz Modou Fall ay moo kii Bouba Ndour suñu seete ñoom ñëpp seeti nañ ko nag Bouba Ndour seeti na Kouthia ah Oustaz Modou Fall seeti na Kouthia ah Birane Ndour seeti na ko ñëpp ñu ngi koy kilifa yëpp ñu ngi coi ñu coi koy seeti waaw ah. mi ngi si loxo so état fi mu nekk nii. ñoom ñoo ko jël en charge ñoo ko jël en charge. Ah. Ah, nekk nguuru Jomaay waaw ko jël en charge soo ko yaa ngi koy faj faj bu baax. Hmm. waa xam nga tabax si ba tey avant tabax si ba tey fu mu nekk hôpital bi mu nekk ñu koy fay muy lekk ka naan ah taal ko kilim muy seetaan télé xam nga ni loolu du ay caaxaan. Hmm. waaw fi mu nekk nii kay moom mi ngi fi kii moom. mais Mbaye. waaw man du toog ak yow.

dossier yi mu yi fan yii nii. Hmm. ah su nekkee man man maay man maa koy kalaatee. Hmm. su ma ko kalaatee ñii ñi xam ko. Hmm. léegi su ma si xuusee rek lu ma si wax dañ naan dëgg la comme maanaam moo tax ma ma damay damay damay joxe damay joxe kii bi rek damay siffler rek mais du ma du ma du ma def dara waaw. te Mbaye. dafa am lu garaaw lu Sénégalais seet ñun ñu yor sa numéro di gis seet xam nañ mbay lépp lu xew si yow lañ koy njëkk déggee te loo wax da ngay ñëw rek junj waaw waaw mais mais loolu la suspend la ay ngeen def seen liggéey parce que man awma oh carte du journaliste léegi man suspense yi yéena ko war a dugal ko war def man damay joxe rek record am na yoo xamante ne sifflé suñ ma warul génn damay arrière hmm. waaw comprendre waaw su nekkee am na yu bëri yoo xamante ne su ma ko joxee dañ may woo sax fay ma ne ma génne lii ma génne wu. des fois des fois day mel ni euh, gars yi dañ bëgg di feeñ loo. boo xoolee statut da ngay dégg mu naan doot waaw parce que su ma. dañ lay ma wax day mel ni euh, li ma wax du waaw dañ lay dañ lay fen loo parce que ah, ah kii wu Mor Aziz bi. yow laa ko njëkk a ma ko dugalee. ñëpp ñëpp Sénégal yëpp man maa leen ko informé Sénégal yëpp du man maa leen ko informé. may foo yegee loolu foo muy leer de. <laughs> waaw fu <laughs> ma ko jigéen ma ko su si benn sëriñ bu mag laa toog si benn sëriñ bu mag laa toog nabu lay di woote si laa ko gisee si laa ko déggee. sëriñ bu mag nga toog waaw nabu lay di jooy naan gisuma Aziz gisuma Aziz sëriñ bi jékki-jékki ne ko may ma deux nga woote waat. deux minutes yooyu bi mu jotee deux minutes yooyu déedéet laa si woowee ah. ah waaw ah, li ma fekkee moo tax ma ni leen information bi li tax ma génnee ko. li nga wax ni <laughs> noonu moo te mais Mbaye.

dossier mbër yi dama ko see def nii njuj def ko nii xamanaan nga dama ko see mbaj mbaj bi mu nee day dugal photo yi ma ni barki Serigne Touba ma ni ko amoo foto amoo tus ne ma def vidéo ne su su photo génnee su photo génnee su Adamo dugalee foto man ma supprimer samay compte Adamo daa dugal compte dafa dugal photo. dugalul yorul. da doon booster compte Instagram kii Telegram yorul dara day fen barki Serigne Touba billaahi wallaahi tallaahi maa ko gën a informé maa ko gën a xam moom day fen rek barki démb laa gis muy woo Amady Badiane di ko baalu àq. Adamo barki Rasul naan ko xam nga loolu waruma koon wax. barki démb laa. barki Serigne Touba barki alxuraanul karim xaadim rasul Adama woo na woo na di ko baalu àq naan ko maa la tooñ baal ma àq. Hmm. baal ma àq barki karim billaahi wallaahi tallaahi ci waawoon laa nekk Adama lu mu wax day fen. boo lay tontu de. dig désabte désabte ne leen si moom. dindi leen xaw ma allo nan lañ ko waxee. yow da nga bëgg a wax Adama yor na day napp Serigne Touba day leen désabonné leen ci moom. billaahi wallaahi tallaahi. te moom te moom billaahi wallaahi tallaahi. désabonné moo yor information yu yu gaaw yi yorul tous yorul tous. information yu wóor yi nee moo ko yor mbay. waaw billahi kaamil waaw du ngeen ma fekk sama kër mooy jàpp ba set yor kaamil. julli ñaari raxa ah, wax li. Adama moom su su su ma ko su ma ko link link bu mu am fii nii. ah Sénégal man mii lay woo comprendre nga. te su su ngeen ma fekkee que ma wax link bi. mbay attention yaa ngi commencé feeñal ay mbóot yoo xamante ne sénégalais yi xamuñu ko woon ba jaan di joojoo yu métti. mbay te yow da tax da ngay tax sénégalais buñ mënul jot aaduma si yow la ñu. ma yàqal. mbay yow xam nga suñu mbay mbay. bay ci serigne touba khadim rasul won amadi badian diko balu ak nan ko bal ma ak ma la togn hmm. ya. nan ko ma la togn sa digënté ak wali dafa neexon ma la togn billahi wallahi taala won amadi badian nan ko man fenkat la man may kuti bow bow man may rambaj diko ko wax di wax bopam billahi wallahi taala Wono umudi banyak duko ak. bal ma ak. ma lima lima iya, ya, kan ya? nah, gara ya, hmm. Aziz xam nga ñaata bëf la jënd may ko ñaata la ñaata ñaata nak la may ah bof waaw waaw. ñaata bof la may. demal waaw. nag bof la noonu la. deux mille deux mille nag la jënd. barki dem waa ñu nag yi mille laa déggoon de. jënd waa ñu nag barki Serigne na mille nag. Mhm. Ilimane Lam jënd mille nag. ah Aziz. Aziz jënd mille nag. loolu ñaata la trois mille nag. trois mille nag. wàññil nag yi. dégg nga ah, ah, Seras nag desatu fa wàññil nag yi wala Mali la. non non. buuse laajal buuse këjëb këjëb bi si kaw ak Fadam bari Rasuul lay. waaw ah. Baye Ndiaye nag la jënd. Iliman Lam jënd 1000 nag. Aziz nag am na nag yoo xamante ne dem na dem na dem fee xam nu mu tudd Kaolack Kaolack Ndiassane Kaolack Kaolack Aziz Ndiaye li mu fa si ay nag démb. kenn mënul wax. xalifa généraux yi xalifa ah. lu rafet loolu kay Ndiassane kilifa yëpp Touba fépp la yóbbu nag dégg waaw sama kanam comme Aziz Ndiaye kon du ay du du ay kii comprendre nga loolu loolu dañu woon sax bëgg wax. Mm-hmm. mais man maay jël décision wax def si gàmm gi nañ ko ko nangul. Mm-hmm. macha allah mbay coowal nogay kara ak moment vulgaire. ñu bari nag ñu ngi wax ni maman Vulgaire da doon utiliser Nogaye Kara te coow bi ñu jote mooy yaayam moo ñëw toog ci biir ñu bëgg ko dugal ci biir live bañ. non non Nogaye Kara kii da koy kaañoo rek. la. mais Nogaye Kara réeroo wuñ. réeroo si boppam gars yi koy wax ñoo ñoo yàq. doom day Adamo gis naa ko moom la faral de. waaw fii xoolal billaahi wallaahi taala coom lu mu fekk def ko def ko def ko kaani xoolal no koy karaa ak ak kii ak ak ak maa ngi leen jiwoo ay xarit lañ xaw ay xarit lañ aadamo mais mais mais Mbaye ñenn ñi ne nag moment vulgaire ni muy waxee ak Nogoy Kara mu leen metti. mais salinzi la koy minimiser wala dara mais salinzi la. ok loolu mooy seen seen seen. mooy neexal laay waaw loolu moo koy neexal. ok. comprendre loolu moo koy neexal kii day safal kii di kii comprendre nga nañ leen bàyyi seen këpp seen ñoom ñaar comprendre mais mën na moi vulgaire suñ euh, euh, euh, Nogaye Kara suñ ne sa njaay mën na wuti njaay mais bu mu bàyyi moi vulgaire na koy ji nay dem di jaay mais na ñëw def laay fa parce que ñoom ñaar seen wërsëg daa ànd. dëgg waaw ku si wax day fen comprendre nga Nogaye Kara bërki dem ba tey maa ngi koy bëgg a woo mais ko. xam naa nag naa ko jot fii ak suba wala gannaaw suba naa waxtaan ak moom parce que sama xarit la. Nogoy Kara waaw Nogoy Kara sama xarit la. yow loo koy conseillé. non dina delluwaat. mu dellu ci moment bi dina delluwaat. mais Sénégalais yi ne na ut yëfu boppam nag. non dina ko yëf mais dina dem moom Nogoy Kara ñoo bokk. heure dem jotagul quoi. waaw dem ak jotagul ma nekk si kii xaw ma moment ba si kanam. ba si kanam waaw. am na solo comprendre moom mënu dem kee mënu dem. mbay père dañ ko de wala. waaw père dañ ko téye parce que waaw dañ ko téye parce que en euh, bi murid bu mag la de mbay. gars yi ko soo fee dafa garaaw quoi dafa daal ci kaw parce que ay du ko jóg yéeg du ko jóg rek yéeg quoi gars yi nañuy woote nañuy tàmm di woote ba pare ba jot kuy ñëw kër jàmbur da ngay kuy dugg kër jàmbur da ngay woote kuy dugg kër jàmbur da ngay woote soo ko soo wootewul loolu fa dal yaa yow a waaw da ngeen koy xool li mu jaaxlee noonu xamee naa ko sax si réseaux sociaux yi mais xaw ma kan